coowalub Casamance bi fi jot a am yi fan yi nii nga xamante ne rek dox na ci diggante rebelu MFDC yi ak i tamit militaires yi li waraloon jëf joojoo rek moom mooy militaires yi ñoom ñoo demoon ci base rebelle yi rek ngir daal di leen attaquer détruire leen ngir mën leen a dàq rek ci bërëb yooyu nga xamante ne nekk nañ fo occuper ko lu ci mel ni yoonu Sindian bi rek daal di dem biir àllu Casamance bi vers le ba tax na rek suñu militaires yi demoon rek ngir attaquer leen ci loolee nag lañ jotalaali maanaam diggante rebelle yi ak i tamit soldats yi am na rebelle yoo xamante ne rek jot nañoo ñàkk seen bakkan mu nekk ay éléments yoo xamante ne sori woon nañu loolu ci njiitu rebelle yi mu di Salif Sadio ci loolee ñun tamit ci suñu soldaar yi rek maanaam ci militaire yi am na kenn rek ku ci jot a ñàkk bakkanam ci alxemes bi lu toll ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars atub 2022 ci ëllëg sa nag ci aljuma bi lu toll ci fukki fan ak ñett ci weeru mars rek lañu jël koor bi ki ñàkk bakkanam nag moo ngi tudd rek Assane màgget Diédhiou lañ ko jël rek daal di koy yóbbu jébbal ko famem daal di koy yóbbu rek ca dëkkam bu ñuy naan jibanaar nga xamante ne digganteem ak guddoom def na lu toll ci juróom benn kilomètre ñoo ngi ko fa yóbbu nag ci bëccëg bi ak benn convoi boo xamante ne rek bu am doole maanaam ànd tamit ak mbooloo bu takku góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp daal di woon fay tase mu nekkoon rek ab bésub njàqare ñoo ngi fa yegsi nag daal di leen jébal rek koor googu nga xamante ne daal di nay ñàkk bakkanam ci xare boobu noonu rek mu nekkoon ba ñu ñëwee nag dëkk indi woon kenn mënatula téye woon boppam ndaxte nekkoon na loo xamante ne métti na loolu ci xol rawatina nag kii nii di wéyjuram yu bu jigéen ba léegi sax nii kenn mënu kaa defal ndaxte moo ngi denc doomam bu jigéen ba mu ko dencee ak léegi rek moo ngi am ci lu toll ci ñeenti weer muy jooy doomam bu jigéen boobu noppeegul ñu daal di koy tegal rek doomam bu góor bii nii nga xamante ne sori woon na torop ci moom ci li mu jot a wax rek daane ci at yi nii borom bi gisul kenn ku dul moom li war rek moom mooy mu faataale ko benn yoon ndaxte am na ñaari doomam yoo xamante ne rek daal di nañuy ñàkk seen bakkan ci loolu mu tegoon ni ci ku jigéen kii nii la mbir mi di yem ku jigéen ki ba mu gaañoo ak léegi def ñeenti weer ñu daal di koy indilaat Assane Maguette Diédhiou mu nekk loo xamante ne c'est inconsolable comme ni ko tubaab bi di waxee rek mënatuñ ko dëfal ba tax na wedd na bu baax a baax a baax kenn mënu kaa noppiloo ndaxte dafa am naqaru xol te li ko gën a metti ci mbir mi rek moom mooy wéjur bu góoru Assane Maguette Diédhiou boobu noonu rek di wuyoo ci Lamine Diédhiou moom tamit ci anam yi lañ ko faate faat boobu Assane mii nii nekk ab tut tànk kon nag Assane bu demee moom tamit ba màgg ba toll ci yenn at yi nekk ab ndaw amoon rek lu toll ci ñaar fukki at ak ñett ndaxte ci atub 98 la daal di a si àdduna ñu daal koy faat mbir mi daf koy gën a metti te da koy fàttali lu bëri loolu nag la ko waral mooy dëkkuwaay ba ñu njëkkoon a nekk rek dafa nekkoon ci baasu rebelle yi nga maanaam dañoo jege wantoo woon loolu ak fi nga xamante ne rebelle yi fa la nekkoon rebelle yi ñoom ñoo fa fees ba tax na seen famille ñu ci bëri rek ñu ci loru rebelle yi am nañ ci part bu ñu paree ci loolu jàll génn rek ca Louga ab mason bu fa am lu toll ci ñeent fukki at ak ñaar moom moo sàkku rek benn xale boo xamante ne rek mineur la ci loolee ñoo ngi ko tëjoon nag ci mois de mai wu atub 2020 ba nëganilee barki démb rek ñu daal di koy dóori jugé bañ ko jugé ba noppi nag daal nañ koy tëj lu toll ci fukki at yoo xamante ne rek dina ko tëdd kaso ngir lan pédophile ak itamit détournement de mineur donte bi divorcé ak soxnaam yàggul dara nekk père de famille waaye ba mu divorcé terewul ne moo ngay jël xale ba sax lu toll ci ñetti yoon yoo xamante ne rek ci ñetteelu yoon bi lañ jote nemmeeku ne rek day jël xale bi di ko sàkku di ko tëddee sa bés bu nekk waaye nekkul woon loo xamante ne rek bu leet la ba tax na rek commissariat central Louga daal koy teg loxo ba sax ñu daal di koy tëj lu toll ci fukki at bu ñu paree ci loolu jàll ak ci clash bi nga xamante ne ñu ngi koy dégg fan yii nii ci diggante wëy yi nga xamante ne rek ñoo ngi leen di déglu maanaam mu nekk ci balance bi loolu mu ci mu nekk ci diggante Sidi Diop ak Wally Seck daanaka kenn waxul ak sa morom directement waaye ñoo ngi koy nemmeeku rek ci woy yi nga xamante ne ñu ngi koy génne rawatina nag kii nii di Sidi Diop donte fatt na jaal bi ku nekk di wax naan day toppandoo Wally Seck mu ne leen gisagoo leen dara ba Wally Seck génnee woyam rek moom tamit mu daal di génnee yi nga xamante ne moo ngi ko doon togg ba mu mu ne du ma yem ak yéen foofu ndaxte ba mu génnee wee ci olof rek mu di ngalamam bi nga xamante ne réseaux sociaux yi yëpp ñëpp di ko béggee mu nekkoon rek woy boo mu ne ma woo rek bi mun na olof bi tamit tamit ku ko ci ko ci anglais bi rek mu daal di tari ci loolu ñu gis woyu Wally Seck bi digganteem ak Viviane moom tamit moom Sidi Diop rek mu daal di dem génnee woyam ci kii nii di Queen Biz kon fi mu nekk rek lu waay bëgg a xam ci ñaari woykat yooyu rek nañ dëgg lu woy yi te xamante ne kenn kenn toogul ci plateau wax waaye ko yor sa micro di woy rek dinañ bëgg a xam bu baax a baax li ngay wax ndaxte di Diop ci boppam nee na rek xol buy fanaan ci frigo kon jarul laajte ndax moo ngi féex kon boog tontu boobu noonu daa mel ni am na borom